monde entier ñëpp di Lamine yamaan Lamine Yamal ñu ñu ànd ci Lamine Yamal te am fi Amara Diouf non mais gars yi neexul ba neexul mais Amara Diouf yi ma gis nii wallaay ndeysaan man xooluma Lamine Yamal yàlla xam na loolu salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur seen sant gis nga boo amee or wala jamaa koy protéger waaye yëkkati ko ci kaw a kaw boo ko ko gis dina xam ne ni lii tawféex la. mais Amadou Diouf équipe nationale Sénégal A loolu war a xalaataat la bu compétition bi jàllee espérons yàlla na ko yàlla jàppale ba mu jël coupe du monde wala soit mu def compétition bu exceptionnelle foofu dañuy teel a araftu Aliou te wax la ne football du xale amul mag ak ñoom seen c'est vrai mën naa ni expérience ci la mais jamono jiñ toll nii monde entier muy football beeg basket beeg technologie beeg ci jàng beeg lépp da ngay gis ko am 15 ans am expérience ci benn mbir. maanaam expérience léegi dafa gaaw pour nga am ko du caage ni nga am ay 30 ans non non da xool Bellingham il est expérimenté malgré il n'a que 20 ans expérience laajul ci âge yu kaw a kaw Lamine Yamal il est expérimenté maanaam koo xam dafa mën ci li muy def dafa da ci am talent boobu ba pare dina ci mën a génn équipe am laajatul nga am 16 ans 17 kon nag lu jar a bàyyi xel Aliou Cissé te xam ne ne compétition espérons daal dañ ñaan yàlla yàlla defal ko cat mu def compétition bu exceptionnel jël meilleur buteur Sénégal jël coupe bi. mais lamin Yamal bi gars yi di wax ak ñoom seen ñun am nañ koo xam ne ni jaay non xooluñu sax Lamine Yamal taluñu ko vraiment buñ si génnee affaire de far Barça Real ak ñoom seen mais footballistiquement da ngay xool booy bi nga xam ne kii non seulement dafa am fit yamaatuñu foofu il est osé foofu booy la boo xam ne ni il est décisif boo xoolee bii équipe nationale Sénégal U17 yeeg yëpp moo koy dugal te ci <laughs> moment yi importance da koy dugal soit premier match wala seen kon nag gars yi jar bàyyi xel la. képp ku ànd ak man ci loolu euh, dóoral ay kër ci commentaire te it nga partagé vidéo vidéo bëgg naa mu law comme ni Lamine Yamal su may def ci moom vidéo mu dem ba ay 1 million de vues 500 000 kii bëgg naa mu dem ba ay 600 000 vues kon nag partagé leen ku ngeen def ay drapeau Sénégal ci commentaire yi Amara Diouf yàlla na la yàlla lafal cat musal la ci saytaan yi mënuñoo ñàkk bañ a wax nag ku def dara ñu wax te it ni européens yi di tàggee seen i jour di leen yëkkati ñun lool mooy suñu wareef kon dañ koy def waaw ñu fi nekk di jaay affaire de professionnalisme noo teel na booy bi buñ ko freiné amul freiné amu fi de européens yi daa wax fopp ci seen football da dafay gën di avancé seen joueur dañuy gën di toj kon buñ fi nekk di jaay affaire de intellectuel ak professionnalisme ak ñoom seen kenn gënu fee professionnel kenn mais li am doon koy wax mu jeex te ñu encouragé booy may leen confiance waaye amal yàlla na ko yàlla defal jot mosal ko seetaan mu jëm ca kanam ak kanam jàmm yi ba yoon ci yeneen yàlla na la Fassane sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien ñoo far kontaan na wallaay ndeysaan saa yi gerte la quoi ñoo far avec mon grand Diouf mais bëgg nañ ci waa

What? لجوا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على مثل الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا القوم ما leen yàlla def na lu am jom. macha allah. dégg ngeen yàlla def ay Sinoa. ngeen mokkal alxuraan. dégg ngeen alxuraan mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu leen bu baax a baax. yaa tuur macha ak jàng alquran